xanaa kon ko wax laa ilaha illallah rek nel ko baax a ngi nii waxum ñoom nag al yahudu wa nasara yatluuna al kitab ñu ngi jàng téere bi ñee ngay jàng injil ñee ngay jàng tawraat te injil ak tawraat bu ci nekk wax na sa morom kazalika lii ñu wax nag qaala la waxoon allazina ñi nga xam ne laa yaalamuuna amuñu xam-xam misla qawlihim wax ji mel ni seen wax ji rek la ñuy wax jeex na ñamul xam-xam wax ji mel ni seen wax ji rek la ñuy wax fallahu yàlla nag yaxkumu moo nar a àtte baynahum seen diggante yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ñëpp taxaw ñeenti téeméeri at kenn du sol mbubb kenn du sol mbaxana kenn du sol tubéy ñëpp taxaw yowmal xiyaamati ah fii ma kaanoo ca lañ nekkoon yaxtalifoona fii doon te wuute yàlla nee na wa man aslamu kenn dàqu sa tooñ mim man man a ak kuy tere masaajidallahi jàkka yàlla yi wa man aslamu kenn dàqu sa tooñ mim man man a ak kuy tere masaajidallahi jàkka yàlla yi kuy tere jàkka kenn dàqu laa tooñ waaw tere jàkka nag mooy waa ji julli nga ne ko doo fi jullee waa ji waxtaan nga ne ko doo fi waxtaane dafay conférence nga ne ko doo fi conférence jigéen ñëw jàkk nga ne ko jigéen du ñëw jàkk aju xale ñëw jàkk nga ne ci biti ah xale kay nga eh dem nañ ca ginnaaw waaye ci biti yéen jigéen ca ginnaaw waaye it léeg-léeg nga nekk benn jeune teewoo jàkka ji ci wax leen génn ci biti waaye say terme ci biir jàkka ji yaa ngi geddloo paayi jàkka ji ngeen baal ma dégg ngeen ñëw ci jàkka ji def nii jël ñetti place daal def nii say loxo yaa ngi ba nar a tax benn paa gedd jàkka ji te yaa ko def boo yàlla say tànk fii lay nii lay war a toll fii bu ko xasee weesu rek ëpp na te yonent bi nee na laa laa laa tafrita wala ifraat bu mu ëpp na toll fii waaye def ko nii ah préparé na waaye seen sànq yi waaye yaa ngi ni problème ci jàkk bi benn wala nga def nii xool benn paa nga naan ko moom de eh bu ma ko defati ah. yow yaa kéré problème boobu wala nga ñëw ci sàpp si yor fecc bu rëy rëy rëy rëy def ko nii daa def nii ba xam sàpp si jum na yaa ngi kéré problème ngeen baal ma waaye il faut travailler affaire yi ñoo ko bokk gis wala nga ñëw ci jàkk ji plongé kenn waxu la plongé dañu ne bu sa fii laal fii loolu rek lañ wax waaye ni ñay deux cent pare sac jàkk ji fees yaa ngi aay jàkk ji yaa ngi occupé jàkk ji te rek boo duggee ci aay ji du baax ngeen baal ma waaye dëgg la wala naq rek nodd ba noppi di nodd yaa ngi aay jàkk ji nodd bu naqar day tax nit ñi duñ julli si da ngay nodd nodd ku neex waaw nit ñi ah macha allah daal di ñëw waaye yooyu day tere jàkk lépp looy def ba tax nit gedd jàkk mbaa mu suur ko mbaa mbokk faa bàyyi ci jayaan ko problème wala indi fii indi fii xéewu location ñoom seen yooyu déedéet wa man azlamu mimman manaa masajid allah kon nañ mooy too tere jàkk yi nañu bàyyi ñépp ñu ñëw ci jàkk yi ñu jàngal leen seen diine bi ci gën a xew nag léegi mooy bu ñuy layee hadiis mooy jigéen di dem jàkk jullee biir këram moo gën jullee ci jàkk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadiis bii wax loolu hadiis bii wax ku jullee ci jàkk ja am ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar boobu moo ko gën a dëgër te hadiis boobu waxut illa nisaa hadiis boobu te yonent bi baaraas boobu amatoon ca jàkkaam ja ci mustadara Aïsa mustara kenn wax na ci hadis la tamna'u ima allahi masajid allah bu leen tere jigéen ñi jàkk yi waaye eh jigéen ñi dem jàkk jullee këram moo gën jullee saalam sax moo gën jullee ci biir néegu tëddukaay bi moo gën loolu dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kenn dàqu sa tooñ mimman manaa ci kii tere masajid allah jàkk yàlla di tere an yuskara fiha ñu fay sikar di tere ko fa sikar ismu wutur yàlla moo tax Seydina Ali benn waaye daa ñëw ginnaaw tàkkusaan di naafila ñu ne ko doo ko tere mu ne hee yéen da ngeen a def man de dugguma ci waaw dugguma ci de ngeen baal mu ne an yaskura fiha ñu fay tudd ismuhu tur yàlla loolu lay tere wasaa ma nga tàmbalee dox nag fii qarabiha ci lu ràppal jàkka ja ma ngay dox ci lu ràppal jàkka ja jàkka da ngay dox ci lu ko dundal waxtaan ni diine yonent bi bëggoon dund jàkk jàkka ji daana tax bu daan ñëw léeg-léeg mu indi muuraake wala ñetti mbiskit wala bekku suukar xale bu ñëw masal la nga ne ah jàkka kat c'est bon waaw bu xale bi ñëw fi di mas ay affaire léegi day tubaarkàlla jàkka ji fees del waaw waaye jàkka joo xam ne mu ngi fees rek tëju tëjal tëjal ñu tëj fépp bala nga dafa wéjal sax ñu tëj la ah tabarkallah alhamdulilah ulaika ñoo ñuy tere jàkk yi maa kaana lahum wuru ñoo sañ maa kaana lahum wuru ñoo sañ an yadxulaha di dugg ci an yadxuluha di dugg ci jàkk kuy tere jàkk wuruloo am sax sañ-sañu dugg jàkk ah waxuma laa ne ngay bokk ci ngay bokk ci ci ci jàkk ji waxuma laa ne ngay bokk ci bureau bi illa xaayifin lu dul dañuy laxatu ñooñu dañoo war bu ñu dugg jàkk ji dañuy laxatu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tànk ndax jàkk yi dox ndax jàkk daa war a dox moo nekkoon école ci la saaba yi génnee ah ba demee keer jàngukaay ba fa gën a rëy al azhar jàkk la woon jàkk mooy jàngukaay ndax ku fi ñëw da nga naan tekk da ngay déglu bokkut ak jàngukaay ba la nga xam ne boo jàngale xale yaa nga naan nga xam ne déglu leen waay jàkk moom ku ñëw naan cell tabarkàlla nga àjjuma ni muy def bu ilmaan ñëw ne alhamdulilah ñëpp ne cell tabarkàlla kuy tere jàkk lahum am nañu fi dunya ci àdduna xes yoon gécci yàlla defar seeni mbir mukk lu ñu dugg mu seetaan leen ah wala hum am nañu it fil axirati ba laaxira azabun azim mbugal gu rëy yàlla jàlla musal walillahi yàlla moom almasiru ko fenku kon ku samp jànka di ko tere wal bëtil fenku ba yàlla mu ne maa moom fenku nga defar jàkka ji jëmale ko sama fenku ba noppi di ko tere wal maghrib maa moom sow it ci fa nga jubale sa buntu jàkk waaw fa aynama tuwallu fu ngeen jublu bi ngeen di julli fa samma wajhullah foofa la yàlla nekk foofa la yàlla nekk inna allaha yàlla waasiun ku yaatu la alim ku xam la waaw kera ba ñuy rey ndeysaan said ibn saidu said ibnu amiru dawsi ndeysaan aay ji la doon jàng waaw ba ko ba ñu koy yónnee yéefar ya jàpp ko commencé seel nopp bi lay ndeysaan daan ne ko waaw fii nga taxaw nii ndax bëgg nga yonent bi taxaw fa mu ni mukk kooku bëgg mu dégg jam ko te te te mu ne kooka bëgg mu dégg jam ko gaa yi jàpp ko ndeysaan ak ko takk ko ca kaw muy reetaan buur bi ne yeewi leen ko mu yeewi ko mu ne ko looy ree mu ne ko damaa xam ne jëf yu ñàkk fayda yi nga may def bis boo dee yàlla dana la def yu ko aw buur bi ne rendi leen ko parce que waxam bëri na lool ñu daal di fab kanam gi jëmale penku mu daal ne fa la nuwalliyannaka xiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra almasjid alxaram yàlla nee na booy jul jublu penku comme yéen a ngi may rey mu jublu penku alhamdulilah ñu ne i daal di jubale nii soow mu ne walilahi almashriqu walmaghrib daal di ree ñu ne moom daal di koy këpp di ko reen di fii mu naan nag léegi fa haysuma tuwallu fa samma wajhullah fii lañ ko reen di ndeysaan ci dox gi yal na ko yàlla yërëm wa qaalu yahud yi nee nañ ittaxasa allahu yàlla am na wala dan doom ju ñu wax Isa wa qaalu nee nañu ittaxasa allahu walada yàlla am na doom subhanahu tuub tuub yàlla am na doom fu ngeen ko dégg rek nee leen tuub bal li fi nekk kay lahu moom moom maa fi samawati li ci asamaan wal ardi ak li ci suuf kullun lahu xaanitun lépp koy jaamu di ko ommatu wa qaalu taxafa allahu walada ñun nag bi ginnaaw subaa ci jeudi jeudi la ñuy wax ni bis bii la yàlla amoon doom alxames jii di ñëw mooy le 24 de wallaay yàlla baax na bi mu ci defee koor gi ren ba am nañu dellu ginnaaw tuuti ñu tuuti musiciens yi nee nañ bàyyi nañ musique bi ñu génnee seen kaset yi xaw nañoo tiit dégg naa sax jenn waaye naan bu leen tiit def leen parce que araamut waaye ñoom ni tiit nañ maroon ñoom nag du ma dégg loolu damay bàyyi rek nee nañ duñ génne seen kaset yi nañ génn daal boor la douze nangam nangam waaye biir koor gi daal ndeysaan da ngi dégg benn jigéen ñu naan ko ndax da nga bàyyi mu ne déedéet damay damay damay ormal koor gi mu ne koor góor mu ne du bàyyi ren day ormal koor gi waaw yal na ko yàlla yërëm waaye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñëw dëkk bi yépp ngeen koy rujox rujoxee te bis boobu ci la ñu ne ci la yàlla am doom nga war a mer war a teel a tëri war a mer ni asamaan teg suuf si te yakaadu samawaat wala takaadu samawaat yatafattarna min fawqihim wa tanshaqu al ard wa taqiru al jibal an daaw li rahmani walada yàlla amul doom bu amoon doom dee xewi bu yàlla amoon doom kenn dootu dee parce que loi dee su boobaa bu doomam naree dee dañuy agressé loi bi waaw bu yàlla amoon doom doom ju nar a dee coro la dee di xewi boo fekkee góor gu amul séet te séet ba yàggagut dee na ko roof mu nar a dee te moom mu yor dee dana dee séet ba du dee parce que dee baaxul ci séet boo fi amoon doom mu liggéey ba liggéeyam jeex mu dem Canada ñëw fii ñu def ko mu nekk directeur directeur banque mondiale mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor loi dee dana dee du dee boo fi amoon sëriñ dem di ko siyaari fekk mu feebar bay bëgg a dee te nga yor loi dee dana dee du dee man mii su ma yoroon loi dee ku ma jox mille cinq cent doo dee waaw yàlla xam gum xam ne ñëppay dee xam gum nga koy xam yow dalay xamal ne yàlla amul doom lam yelid wala bi yolad walam yakul lahu kufuwan ahad yàlla moo tax wañ ko waxee subhaana la ca teg gàcc ngalaamaa yàlla tuub bal li fi nekk kay da ngeen a war ne lahu moom moom maa fi samawaati li ci asmaan lépp wal ardi ak suuf kullun lahu xaanitun ñëpp a koy ommatul di ko toroxlu ñi gëm yàlla ñi gëmut yàlla góor ñi jigéen ñi ñëppay toroxlul yàlla dafa am nag al qunuutu al qahriya wal qunuutu al tashriiya wala al tawiya toroxlul yàlla neex na xarit ak toroxlu yàlla ci coobare toroxlu yàlla neex na xarit mooy ñëpp a koy def tey jii ñëppay nelaw ñëppay xiif ñëppay mar ñëppay dem ca wana wa nangam nangam loolu neex na xarit ak màgg mas ngeen gis ko garaw ne du ma màgg ah du ma màgg man parce que dañu ni fontu mas ngeen koo gis màgg rek wala du ma fi béjaare waaw du ma fi béjaare ñu wax màggat mi dana béjaaw de waaw wuti pomade di diw kawar yi bés rek ba mu yàgg wax fuur loolu mooy alxunuut alqahriya neex na xarit kullu lahu xaalitu kan mooy yàlla yàlla badiu samawaati mooy ki sos asamaan ti gisowu ko fenn bidaa moo sos asamaan wal ardi moo sos suuf wa isaa qadaa amran su nattee am mbir ba nar koo dogal fa innama yaqul lahu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nekk kun fa yakun moo tax fa inna risqaka bayna alkaafi wan nuuni sa wërsëg yow ñu ngi ci diggante kaaf gi ak noon gi rek ku ak an kun ku gëm loolu na doo carte ñu dem de wa qaala wax na alladina ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu dara ñu ne law laa yukallimuna allah lu teewoon yàlla wax ak ñun ñu ne yonente bi yàllaa la yónni mu ne mu ne bu bëggee ñu wuyu ko na wax ak ñun aw taatina aaya wala mu andil ñu mandarga muy wane ne moo la yónni yàlla ne yonente bu mu la métti kazalika lii ñu wax xaala la waxoon allazina min qablihim ña leen jiitu woon mithla qawlihim mel ni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen xol yi daa niroo lu muy xalaat qad bayyannaa leeral nañu al ayaati aaya yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun ñoom gëm nañ yàlla innaa naka ñun yàlla daal arsalnaaka ñoo la yónni bil haqq ci fulla basiran ngay dëgal ñi la topp wa nazira tey xupp ñi lay moy wala tusalu kenn du la laaj nag an ashaabil jahimi ci naar ñi naar dem sawar resoo kenn ku naar dem sawar lu tax ngay dem sawar lu tax yonent bi lay xool ba kii dem sawar kenn du la ko laaj góorgóorlu ci li ma la yónni rek tabarkalla na nga xam ne nag walan tarda an ka du kontaan ci yow walan tarda anka du kontaan ci yow mukk al yahudu yahud yi yahud ñu ne amul duñ kontaan ci yow mukk walan nasaara nasaraan yëpp duñ kontaan ci yow mukk yow yonent bi tubaab yi duñ kontaan ci yow mukk mukk mukk xatta tattabia lu dul da ngaa topp millatahum seen système soo bàyyee li la yàlla yónni jaar fi ñu jaar ñun la waaw kay lii lañ xam moo tax mu teel a déclaré qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu ma ta'budun mukk waaw walan tarda anka al yahud moo tax kuñ gërëm rek ah seetaatal waaw dañoo yónni yónnee ca maam borom Tuubaa radiyallahu anhu délégation ca jamonoy Blaise Diagne indil ko croix leçon d'honneur noonu lañ ko tuddee ñun xaw ma leçon d'honneur ngeen di wax yéen ba nu ñëwee ne ko Mbàkke yaa fi raw yaa fi man yaa dem ca géej ga sox mi ci bàllal gu bari kéej mi ci ñaan yi bu ko bii gi bañ dab kéew njaay xamul ay na doo moroomu sëriñ si mu ne tekk rek ñu ne ko kontaan lañu am ci yow nag moo tax ñu indil la médaille bii ci dégg nga de croix jullit bu toll ni mu toll ñu indil la médaille yu croix mu ne ana cerno am cerno biraay mu ne mbàkke mu ne ko ndongo yooyu lu ñu wax ne nee nañ day dañoo bég ci yow ndax yaa fi sut wax a wax ba wax di jeex mu ne ko dañuy kàcc gaa yaa ngi toog di ñuy kàcc cerno mu ne ko mbàkke mu ne xanaa xamoo ne suñu borom moo ne walan tarda anka al yahudi wala nasara hatta tattabi millatahum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbàkke mu ne ko ndax mas naa xëy fii tàggalo ne maa ngi dox maa ngi doxal tubaab bi dara mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nañoo santaane lu ma xëy mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nañoo tere lu ma defut mu ne ko déedéet mu ne ko li ma ànd ak ñoom lépp ndax mas naa faat waxtu mu ne ko déedéet mu ne kon dañuy kàtt musuñu maa gërëm allahu akbar kooku benn jàmbaar la woon ci jàmbaari Sénégal yi radiyallahu anhu mu jax takk loolu mooy pratique loolu du théorie loolu du théorie pratique la gaa yi wàññi ko ndànk ngeen baal ma dégg naa benn waykat buy wax bamba jagoo ko wàll sin dënooru mu ne ko yaa mën a tooñ te yaramu nan lay def bu koy way ak mees mu gudd waaw ci ci turu musique loo bañ ba tëdd ca naajo mu ñëw ne yaa ko moom te danaa la ko jox nag yàlla dimbale xul neel nit ñi nee leen inna hudallahi li wóor mooy njubug yàlla huwal huda moom rek moo di njub wala in tabaata waat naa ne soo toppoon ahwaahum seen bànneex yii baxda lazi ginnaaw lii nga xam ne jaaka min al ilmi dikkal na la ci xam-xam maa laka doo am bu yowmal xiyaamee min allahi ci yàlla min waliyin kuy féetewoo say mbir wala nasir wala ku lay dimbale loolu la yàlla wax yonent bi soo toppoon li tubaab bi tëral laa wax boo ñëwee fii maa laka min allahi min waliyin wala nasir ab tubaab bi baaxul ab tubaab bi baaxul alladina ñi nga xam ne aataynaahum jox nañ leen alkitaaba téere te ñoom yatluunahu ñu koy jàng xaqa tilawatihi dëgg dëgg jàng jox ko àqam ulaika yuminuna bihi ñoo ñëw gëm alquran ñu dégluwaat aay jee allazina ñi nga xam ne aataynaahum jox nañ leen alkitaaba alquran yatluunahu te ñu koy jàng xaqa tilawatihi dëgg dëgg njàngam ulaika yuminuna bihi ñoo ñëw ko gëm xaqa tilawatihi loo jàng jëfe ko mooy benn xaaj bi xaqa tilawati yi bu ñaareel bi xaqa tilawati yi booy jàng nga xam teg gi ni ni ñuy jàngee alquran xam fi ñuy taxaw xam fi ñuy aaye ko nga taxaw ba doo taxaw fu ñuy aaye doo yëkkatee fu ñuy tere fi ñu romb léegi ne wa qaalu ittaxasa allahu walada boo ne woon waxaaloo taxaw booy tàmbalee jàng fooy tàmbalee boo ko waxee wax musiba boo doon jàng waxaan daal ne waxaaloo daal di taxaw bëgg tàmbali teg ca baat ba ca tege li nga wax kenn du ko wax te kat yaa ngi jàngal alquran moo tax yéen ne rubba qaari'u qur'anin wal qur'aanu yal'anuhu mu ne bëri na ko yor alquran di jàng alquran naan ko yàlla na nga dee yàlla na nga dee yàlla na nga dee ba mu ne defe ne moom am na tuyaaba ndekati yoo tey mu al ko alxuraan da ngay xàmmee idgham yi si ngay waxee man yasha xàmmee iqlaab yi min baad xàmmee izhar xàmmee iqfa xàmmee almad asli wala fara'i xàmmee madd saqil xàmmee xafiif yooyu yëpp da nga koy xàmmee door a tàmbali jàng alxuraan soo ko xàmmeewul ngay góorgóorlu gi jëkk a boole waaye bul neexal baat ndax boo xamul fooy taxaw boo taxawee du sotti rubba qaari'i qur'aanin wal qur'aanu yal'anuhu ko defee loolu li muy tekki mooy ñun ñëpp ñu góorgóorluwaat jàngaat alquran nan jàng alquran lépp lu ñuy jàng te alquran alquran ko gën tabarkal tubaab bi nag daf ñëw gëm gëmloo ne ku jàng alxuraan da ngay tardé waaw imaamu jàkk ngay doon wala bilaal imaamu jàkk ngay doon wala bilaal bu ñuy saraxa puso sarax la bu ñuy saraxa sondeel sarax la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan si ne kenn nga bu puso dem dem ci benn directeur société nga sarax ko aleykum salaam kon ba suba insha allah wa man yakfur bihi ku weddi alquran fa ulaayika umul xaasiruna ñoo ñaa perte képp ku weddi alquran yaa perte est-ce que yaa bani israil e yéen banu israil uskuru fàttaliku leen niamati sama xéewal yi allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewal naa leen ko wa anni te man yàlla faddaltukum maa leen tànn alal aalamiina ci kaw mbindeef yi xéewal googu yàlla da koy fàttali banu Israel lu bare bare bari waaye banu Israel amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal aalamiin wattaqu na ngeen ragal yow man bés boo xam ne su dikkee laa tajzi nafsun benn bakkan du jariñ an nafsin ci benn shay an dara benn bakkan du jariñ morom ca dara wala yuqbalu minha adl kenn du nangu ci moom njëg njëg maanaam du am looy joxe ndax ñu baal la wala tanfaaha shafaa intervention du ko jëriñ dara wala hum yunsaroona te kenn du leen dimbale allahu akbar xam nga bu ñu doon organisé fii benn affaire mu am paas man ngaa am ñeenti temps pour dugg waaw fépp fu ñuy organisé lu am billet man ngaa am ñeenti temps pour dugg muy ñeenti temps yi benn bi mooy gaa yi koy organisé mën nañoo nekk sa waay nga dikk ñu ne ah Fatou ñëw nga ñu naaw bàyyi leen ko mu dugg suñu waay la quoi nga dugg yàlla nee na boobu amul alaxira bu ñaareel bi mooy bi mu ñëwee ñu ne la dugg nga gaa yi ne du dugg nga daan ne ah waaye pourtant sama waay la ñu ne waaye du dugg de boo bëggee mu dugg dagal ko billet nga daan ne nii ja lamb sa poos daal di ne billet bi ñaata ñu ne 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yàlla nee na loolu amul alaxira bu ñetteel bi mën naa ñëw ci bunt bi bëgg a dugg gisul ki ki ki def yëf yi mu taxaw ne woo leen ma bàcc ñu ne bàcc wuyul bàcc daal di ñëw ñëw ci bunt bi daal di koy ñaanal intervention gaa yi bàyyi ko mu dugg yàlla ne na boobu amu yem na xiyam mu des benn yun saruna yun saruna mooy dañoo fo fo ma xumbut fo ma xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñëw ñu bëgg mu xumb ñu ubbi bunt ya yàlla nee na boobu amul yomal xiyaam benn amu ci yomal xiyaam moom kay dagg billet fii yor sa billet bu ñu àggee nga taalal ko malaaka mi rek dugg moo tax porte bi fi ne ñaari malaaka yi fa nekk mooy munkar ak nakiir